leen jàmm yéeni kaay yépp a xëy delloowaat njukkal Sidi Lamine Niass mi nga xamante ni jébbal ko ci néegu ay waajuram la l'observateur xamle denc nañ ko ci wetu ka fa newoon xalif di Cheikh Ibrahima Niass Sidi retourne en info wax maanaam démb ay nit ñu bëri ñoo ko dar ba noonu ñu koy denc ci noonu source a jàpp ne Sidi Lamine Niass day démb mu ngi woon ci cercueil waaye amoon na lool cote de popularité yéeni kaay bi di source a ne li ko dalee xaar yàlla ba lew na ñaseen jaare ko ci caaroy ba jam ñaajo yépp a génnoon di jooy ci cortège funèbre bi ay nit ñu bëri ñoo ko daroon la yéenikaay bi di Les Échos xamle sii di askanuk Sénégal yépp delloo nañu ko njukkal bu ñu sukkandikoo ci yéenikaay bi sii di Lamine Niass ca Léona Niassène pour l'éternité maanaam ba faw ma nga ñu denc ca mausoléew njabootu Léona Niassène bu ñu sukkandikoo ci yéenikaay bi di Vox Populi enquête jël ne l'aurore éternelle ci noonu mu daal di dellu siwaat ak turi Walfadjri waaye nag coow lu bëri moom moo tardel inhumation bu Sidi Lamine Niass mu ngi mel ni rek li xewoon fii ci ndakaaru yéenikaay bi daal di dellu siwaat li xew fële ca Kaolack nee na nag ñàkk déggoo la woon diggante Cheikh ñas di doomam ak njabootu maraboutique bi Cheikh ñas dafa bëggoon ñu denc papam ci biir zawiya bi ci wetu maamam di maam xalifa ñas loolu nag xalif yi déggee ko woon noonu ndaxte dañoo bëggoon ñu denc ko ci wetu frère di ka fa newoon xalif El Hadj Ibrahima Niass foofu sax la ñu defaroon bàmmeelu Sidi Lamine ba noppi yéenikaay bi ne ñàkk a déggoo tax ñu daal di soobuwaat ci ay waxtaan diggante diggante Cheikh Niass ak ay nijaayam noonu ñu daal di déggoo ci mbir waaye nag dernier mot bi léew na ñasee na ko moom yéenikaay bii di l'observateur ci coow loolu daal di ñu xibaar lépp ak waxtu yi nga xamante ni ay taalibe yu bëri ñu ngi toogoon di xaar ba xool mbir mi nan lay mujjee vox populi ci wàllu woowu ne Sidi ñu ngi ko denc ci booru ñeenti waxtu bu toftal fanweeri simili gannaaw coow lu bëri ay waxtaan yu bëri ci fan lañ koy denc yéenikaay bi sax daal di ñu xibaar ne Cheikh Niass day bësam bi démb daanaka boo moytuwul du ko fàtte ay taalibe ñoo daloon ba sax autopolis moo ko jëlee fi ñu doon denc Niass moom ak frèram daal di leen rawale fale ca commissariat bu Kaolack moom Cheikh Niass tànki neen la dawee ba ñu yeggee ca commissariat bu Kaolack ci la ñaari oto 4x4 ñëw jëlee leen foofu andiwaat leen fii ci Ndakaaru beneeni mbir mi nga xamante ni amoon na démb ca Léona Niassène ci bi ñuy denc si Sidi Lamine Niass kaay bi di enquête ak les échos xibaar ñu ne amul woon benn membre gouvernement bi bu ko ñëw fekke maintenant autorité moo fa ne woon muy gouverneur bu Kaolack Alhassane Sall waaye nag ba léegi seede yaa ngi wéy ci Sidi Lamine Niass bu ñu sukkandikoo ci leetar bi nga xamante ni kii di Abdoulaye Wade bind na ko yéenekaay yu bëri ñoo ci dellu si ci biir l'observateur moom Abdoulaye Wade dafa révélation nee na mook Sidi Lamine Niass dañ doon liggéey ci projet financier ngir suqali Walfadjri maanaam daal fexe ba Walfadjri doon chaîne télévision bu am doole ni yeneen télévision yi nekk si àdduna si Abdoulaye Wade ne yeggali projet bi ak ki nga xamante ni moom mooy wuutu Sidi Lamine li nga xamante moo di projet financement gi mu namm ci Walfadjri ku ne financement nay koppar ay koppar ci biir yéenekaay bi di Libération ak chèque 30 bi nga xamante Karim Wade déposé na ci caisse de dépôt ak consignation Karim daal dina déposé caution ni ki démb bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Libération chèque bi Oumar Sarr moo ko yóbbu yéenekaay bi di les échos ne du moom rek Karim Wade de ndaxte kii di Mamadou Lamine Diallo it daal dina déposé caution ñeel élection présidentielle gi ñu na ma amal ci atum 2019 Sud Quotidien ci élection boobule ne boo moytuwul ay candidat yu bëri duñ ca bokk waaw turandoo karo bu baax nu muy mel